Dame Mbodj euh, ñu ngi lay nuyu. maa may fàttali suñu auditeur ni yow yaay secrétaire général CUSEMS authentique euh, Dame Mbodj tey jii gannaaw ñetti yoon ba ñu waajee ne dañuy ubbiwaat école yi euh, dafa mel ni mbir mi mujjewul antu lan nga foog ne moo tax ba saa bu ñu waajee rek du antu. waaw ñun de li ñu jàpp mooy bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi. soñox soñox ji dafa bari ci li nga xam ne moom moo am ci ñu koy xeex loolu nag ci secteur yëpp la feeñ secteur boo mën a jël nag ñi ngi jooy loolu mhm. nga xam ne danoo déclaré li ñuy tuddee euh, xeex ak mbas nga xam ne lépp li ñuy xeexee dañ koo war a wax mu leer ndax ki nga xam ne mooy njiite xeex bi mooy général bu mag bi muy président de la république ak ñi ko wër mooy ñi nga xam ne kër docteur mhm. ñun askan yi nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw ñu ni ñu niy def loo ñuy def ñu niy bàyyi loo ñuy bàyyi bu ko defee ñu mën a ñu mën a gañ xeex bi waaye comme ñoom boobaak léegi teguñu lenn lu leer ci ci ci ci kaw taabal ji lu sénégalais yi mën a tëj bët loo xam ne euh, sénégalais yi comprendre nañ ko dañuy tëñëx tëñëx yi tëñëx tëñëx boobu mooy lépp lu ñu décidé décidé wuñ ko waxtaane ko ak ña ko ñan ko séqal ba noppi comme feebar buñ ci dolli koo nga xam ne neexul la maîtriser <laughs> mais loolu mooy tax bii mooy ñetteelu yoon ginnaaw biñ ne juróom-benni fan ci weeru avril ne ñeenti fan ci weeru mai ne ñaari fan ci weeru juin ñu daal di koy dàqati bu ci ne nag dañ doon jàpp ay dàq waaye li ciy lu bees mooy bii yoon biñ dàqee joxewuñ dat dan ne rek daq nañ ko ba jëmmi jamono comme dañ ne dàq nañ ko ba jëmmi jamono mooy xamuñ kan nañuy doora loolu daal moo ci bees waaye ñoom ñoom wax dëgg yàlla bu ñu xoolee ca début ba léegi tëñëx tëñëx gi moo ëpp li nga xam ne moom lañ ci mën a jàpp ci li nga xam ne mooy xeex bii nga xam ne sos nañ ko boobaak léegi nga xam ne feebar bi dugg na ci suñu réew parce que première tëñëx tëñëx mooy mhm. ba ñu ak ak ak tuune mooy bi ñu déggee ni feebar bi ma ci réew yu mag ya nga xam ni booba Sénégal amagul dara lañ leen wax ne nañ tëj seeni frontière jël matuwaay waajal mbir mi ñu toog di tendeefal di seetaan ba feebar bi dugg ci sunum réew loolu nag man comprendre naa li tax ñu doon ko def parce que ñoom ay réew yu lañ yoo xam ne baat bi yoruñu ko ca lépp lu ñuy def dañuy laaj ñi nga xam ñoom ñooy seeni kilifa fii ay Sénégal ak réew wuyaa yu mel ni Sénégal comme ay Mali comme ay Côte d'Ivoire nga xam ñoom ñoo gën a yaru ci li nga xam ne noonu la ñuy doxalee ak euh, réew réewu tugal yi leen di jox ay décision comme France ñoom dañ leen dañoo seet ne Afrique ñoom ñoo ci gën a mettale ci euh, ni nga xam ni noonu lañ noonu lañ ñoo gën a nasaxle ni ñuy xeexe ci ci mbir mi euh, gannaaw ëpp wuñ ci maam ëpple wuñ ci ñu dee parce que loolu damay wax ni li koy waral bëri na. Mhm. parce que ñoom dañoo nekk ci réew yu tàng tàng yu métti ko nee nañ virus bi nag wax dëgg yàlla tàngaay day wàññi dooleem rey ko nag parce que mi ngi rey ay nit Sénégal donc mi ngi fi di mbëkkante moom virus bi waaye euh, euh, réew mu sedd guy la gën a am doole que réew mu tàng jër lool moom technicien euh, ñi spécialiste yi yëpp wax nañ ko mhm. Sénégal daal ci gàttal tegul lenn lu leer loo xam ne sénégalais yi mën nañu cee sukkandiku pour que ñu mën a xeex xeex bi. bu ko defee ñu réussir li yeneen réew réussir loolu moom lu leer la mooy tëñëx tëñëx daal moo fi waaye nag xam naa wax nga nangul euh, acteur euh, de l'éducation yi ne euh, fas nañoo yéene waaye nag dafa mel ni yàlla moo bëggul. dama ni fas yéene man gisuma ko fi parce que booy fas yéene da teg lu leer te ñun ki nga xam ne moom mooy jiite njàng mi moom ak ñi mu àndal teguñu lenn lu leer parce que wax dëgg yàlla boo gisee yi mu fi wax. ay nañ jàng toog kër gaak yu mel noonu yow mii def nañ émission boo xam si l'encre et la plume expliqué naa ni loolu yëf yi caaxaan la parce que Sénégal mën ko def loolu mhm. yeneen décision yi ci jëlit du ay décision yi dara maanaam daal ñoom dañuy gunge feebar bi daanaka copier ko ci OMS mi nga xam ne moom mooy gunge feebar bi ci àdduna bi mhm. parce que bi OMS bi feebar bi feeñee ci Chine la mu waroon a njëkk a def mooy fexe ba fekk feebar bi tësil mu daal di wut ay stratégie yu mu ko ree foofa jël matuwaay yi mu war a jël waaye Chine ci boppam booba réew bu bëgg a tëj sa frontière mhm. mu daal di génn communiqué ne la bul tëj déedéet feebar bi du wallante ci diggante nit ak nit booba lañ bëggoon ñoom ñoo la gënoon a xam ni feebar bi day wàllante ci nit ak nit mais lañ bëggoon rek mooy yaatal feebar bi ci àdduna bi donc ñun leen jàpp mooy Chine mhm. euh, ak OMS ñoom lënkaloo nañ fexe ba mbir mi law ci àdduna parce que même Donald Trump affaire bi da koo da jële kaw ba tax sax moom mu ne léegi génn na génnul OMS waaye xaalis bi mu doon def ci OMS moom téye na xaalisam. Mhm. parce que États-Unis am na ñu bokk ci deal bi waaye nekkuñ ci biir gouvernement Donald Trump donc looloo ta Donald Trump mer danoo jaar ci kawam mais moom it ci complot bi da ci daan bokk mais bii yoon danoo jaar ci kawam. Mhm. ay nit ñu mel ni ay Bill Gates ak ñu mel na moom ay fra ay franc ñëpp xam nañ leen ñoom ñoo ne ci biir mbir mi lawal feebar bi ci àdduna bi yëpp. Mhm. léegi nag pour bëgg a wàññi population mondiale bi lii mooy agenda mondial bi. léegi nag loolu moo tax ñoom en réalité mënuñu woon a def lu dul lii léegi nag ba mu duggee ci réew yëpp nag léegi nag ba ba yaatu nag léegi ñu taxaw ne kenn du fi fajal lii kenn du fi fajalee pour pour waajal seen vaccin vaccin bi ñu bëgg a génne donc moo tax ñuy def seen yëpp ñuy def mais na ñun ñu ngi leeral africain yi. Mhm. à part euh, pas seulement les sénégalais mais africains yëpp bu ñu nangu Afrique ñu dugal fi benn vaccin bu jëm ci Covid 19 parce que li ñu bëgg mooy wàññi la population mondiale parce que nee nañ africains yi dañoo bari te dañoo bañ population mondiale bi yokk. lii mooy agenda international bi lan la crise la bi nga moo am ci àdduna bi. ku koy analyser ay mbas moo xam yàlla ko koy andi ça veut dire que yow xamoo lu xew. Mhm. lii du crise boo xam yàlla moo ko fi andi. dans la fatalité. crise bi li ko fi andi mooy OMS ak Big Pharma ak euh, ay ay ñun am alal ñu mel Bill Gates ak ay euh, euh, Pasteur bi nga moo yore test yi ak suuf si ñoom ñoo de andi lii léegi nag ñoom bu ñu fekkente ne andi nañ lii nekk ci àdduna bi lëmbe ko di def lu leen ne ñun ñu nekk fi di wax waxi caaxaan ça veut dire que ñun on n'a pas compris lan moo tax lii am ci adduna bi. Mm. léegi nag xeex moom mun ñu koo bañ a ne parce que dugg na suñu réew parce que ñun ñoo tuune ba mu dugg suñu réew parce que bu ñu defoon yeneen réew yu mel ni euh, Madagascar nga xam ni président ba koy jiite Rajolina dafa jël responsabilité nekk xale bu ndaw am fit daal di wax OMS ku leen man li ngeen di bëgg nii du ma ko def damay jël Covid organique bi nga xam ne tisane artémisia la. nga xam ne garab la bu ñuy bay fii ci Afrique te ñëpp d'accord nañ ne day wàññi feebar bi da koy xeex ba rey ko ci biir euh, euh, moom doomu jàngoro bi day wàññi dooleem ba nga xam da koy rey ba mu dee loolu la def ba tey jii moo gën a néew la ñu dee. Uh-huh. moom Madagascar donc. Uh-huh. jàpp naa ne daal yii mooy li nga xam ne. moom lañ waroon a def ñun Sénégal waaye ñu ko parce que simplement am réew mu wuyaa wuyaa lañ. Mhm, monsieur Mbodj dégg nañ la fii ci suñu euh, rajo bi nga ne euh, moom ministre de l' éducation nationale na tekki ndombal tànkam est ce que lii tamit euh, gisu leen ne oyof na torop pour mu tekki ndombal tànkam. man de li ma gëm mooy bu fekkente ne dañoo jàpp ñun Sénégal ne kun dara. Mhm. mu baax ak mu bon sa yoon nekku ci. ñu jël alalu askan wi du sa alal. parce que ku yàq te yëfi bopp dara du la ci fekk. Mhm. mais yàq alalu askan wi ñu jox la budget askan wi nga yàq ko jël ay décision yoo xam décision cuune la te jox lay ndombay tànk yoo xam ni ñun dañoo bëgg nga doxalal ñu mbir mi pour sunu euh, sunu sunu réew mën a jëm ci kanam secteur ban la ko jox ñu ni léegi boo boo boo defee décision yoo mën ne def parce que déglu mën ngaa déglu ku la neex waaye décision bi autorité bi moo koy def léegi nag autorité boobu su dégloo ba pare jël décision yoo xam ne baaxul. ba nga ñëpp teg nañ seen bët ni décision suuna la te lam yàq bari na ba nga xam ne tey jii ay jàngalekat gis nga transporté nañ leen ci conditions yi métti yóbbu leen te benn rond point teg leen fa ñu wàllante seen bi dem yóbbu mu yóbbu leen ci ay département yoo xam ni feebar bi dugal ko fa ñoom ñu dugal ko fa ba nit ña di leen daw loolu ministre bi ko def mënuñoo continuer di ko bàyyi mu jiite njàng meeg njàng la ñu gis nga Sénégal lu ko yàq il faut ku ci nekk say responsabilité nga koy assumer gis nga moom bu doon beneen réewa mhm. bu ko defee ca suba ga lañ koy dàq du fa taxaw moom daa waroon a xëy démb dem yóbbu euh, lettre am ca palais de la république ne président de la république tekkil sama ndombay tànk ndaxte man kat lajj naa waaye nekk di def conférence de presse loolu du woon solution bi te conférence de presse ba sax na ko defee ñëpp gis nañ ko maanaam daa woo journaliste yi ñu ñëw mu wax de lire ab déclaration journaliste yi di ko posé question mu jóg dem yoonam ne moom du wax ak journaliste te moom moo leen fa woo conférence de presse jam ñaajo moo lay won ne Mamadou Talla moom day nëbb ay lakinam maanaam man je n'ai rien mu Mamadou Talla mais xam-xamam néew na néew boo xam ne mënta yor njàng mi parce que njàng mi du ministère des transports de njàng mi du mm, xeebuma ministère des transports mais njàng mi du ministère des de la famille njàng mi du ministère euh, de euh, du ministère de seen ministère caaxaan yi mu créé du loolu. min jàng mi ay ja borom xam-xam ngay jiite. te ay borom xam-xam boo leen dee jiite da ngay am xam-xam comme ñoom. te ñun danoo jàpp ne moom xam-xamam àggul foo xam ne man naa yor njàng mi. donc loolu moo tax ñun ñu ne nañ tekki ndombal tànkam. Mhm. du nit nit ki moo ñu intéressé kooku intéressé wul. li ñu intéressé mooy cuune gi mu wone ak nasax gi mu wone te ministre éducation bu baax wër te mel noonu. Oh, ñu ko buñ ko dindee. bu ñu andil ministre bu mel ne moom nañ ñu andil ministre boo xam attan na njàng meeg njàngale mi man lépp lu ma wax njàng mi day yéex ak waaru dinañ ko gis. gis nga moom invité ma leen di wax ni ci l'encre à la mhm. ma leen di wax ni nan gaaw suubee xale yi bu ñu yéex nan ko def léegi parce que bu ñu yéexee ba feebar bi gën a law bu ñu ubbee école bi dootul sotti nan booba yow mii yaa ma yaa ma invité ma wax ko. ma ni ci l'encre à la plume ñu yóbbu léegi xale yi ñu gaaw jàng ñu tas leen. yóbbu classe d'examen yi ba ma koy wax dañoo fel sama gémmiñ Dame Mbodj dañuy xeex euh, apprendre à la maison bi moom la bëgg a moom la ñu bëgg a alors que booba jubluwuma ci woon loolu bu ñu ko defoon ko heure bi day fekk da jàng nañ weer ak genn wàll nga xam ne man nañoo mën nañoo mën mën nañoo mën nañu tëjee du am benn problème mhm. donc xam na lu ma lay xamal gis nga décision boo ko waree jël heure ba nga ko a jël ma yow proposé woon ko man leen ba ma ko proposé da ngeen a bañ. <laughs> waaw mbaa njottoon ne année blanche boo mayul ca lañ jëm mbaa njottoon ne année blanche boo mayul ca lañ jëm. année blanche bi de xeeñ na xeeñ na lool bu ñu waxalee yàlla waxoon naa la ko tamit ba nga ma invité ma ne la possibilité année blanche mën na nekk bu dee jëluñu décision yi ñu war jël maa ngi alerté waat te nee naa leen man njàng mi lépp lu ma ci wax du ma gisaane kat. waaye dama cee am expérience mhm. te du man nit koo xam damay seet di damay wax lu neex ay nit waxuma loo xam ne pour neex nit ñi la waxuma loo xam ne pour yàq la damay wax ci li nga xam sama aqulaay taalaa la te li ma ciy wax nañ ci bàyyi xel ñaar yi ma lay wax njàng mi bu ñu bëggee ren and mii ñu bañ koo ñàkk dañuy xaar ba man feebar bi bu ñu manee feebar bu ci biir boo xam ni lawalaat at mi mën naa nekk parce que bu fi feebar bi jógee fii ak euh, mois d'août ba mois d'août feebar bi mën na fee jóge ñu récupérer année bi loolu mën naa ne fii ba mois d'août bu ut jotee nag bu feebar bi demee comme ñoom nee nañ ut yaakaar nañu te feebar bi di mën a wàññeeku bu baax même bu jeexul bu boobaa nag daan mën a ubbi école ñu daal di jàng septembre jàng octobre jàng novembre muy ñetti weer yoo xam ni dañ koy jàng buñ ko jàngee ba pare ñu daal di def examen yi ca weeru décembre bu ko defee bu buñ defee examen yi ba pare nag ci décembre léegi nag. boo ñu ñu ñu ubbi école ak mu bees mi muy deux mille vingt deux mille vingt et un ñu ubbi ko ci janvier bo ko defee ci biir at moom nag ñu daal di def rattrapage yi nga xam moom la ñu a def. Mhm. lii bu fekkee amul feebar bi law baña bañ a bañ yem août ba dugg septembre bu duggee septembre law ba dugg octobre bu boobaa nag soxna Elisabeth bu ñu naxantewul naxante mooy bañ a naxante mooy di jàllale élèves yoom ñu waxtu yeen war a jàng. di jàllale élèves yoo xam si xam-xam bañ waroon def ci ñoom defuñu ko ci ñoom. Mhm. pour nag suñu bopp loolu bu leen neexee def ko de waaye buñ ko defee mooy dafa jural musiba Sénégal. d'accord loolu baaxul bu boobaa nag te la ñuy décréter année blanche xam ne nag jë xaar nan ba fuñ seen mën a yem pour ñu mën a sauver année bi léegi nag li ci des temps bi mayeetuñu ñu sauver année bi léegi nag ñu décréter année jàpp ci yàlla xam ne loolu dal na sama kaw mënatuñ ci dara. Dame Mbodj merci beaucoup. jërëjëf euh, soxna Elisabeth maa ngi kontaan bu baax à chaque fois nga woo pour ñu waxtaan. Uh-huh. Euh, pour ñu gindi Sénégalais ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nekk ci sunu biir njàng meeg njàng. jërëjëf merci beaucoup.